voilà Chérif ma bàyyi la nga dalal ko. docteur Khadim Bamba nekk économiste di jàngale ci université Sénégal yi ak euh, bitim réew ginnaaw bi mu la euh, ak Pelé génn bi euh, xam naa jamonoy Pelé sax peut-être seetaan noo ko wante ban ñu mën a ci footballkat bu mag ah métti na ñëpp comme Sénégalais yëpp ginnaaw ma nuyoo grand Souleymane grand Maodo Malick Cheikh Marcel ak Ibou. métti na ñëpp parce que Pelé moom da ngay judd rek dégg turam ah man. booy Maodo Malick la parce que ñun ay booy terrain ingri lañu. xam nga <laughs> xam nga euh, voilà on a on a on a euh, vécu avec euh, son xëy na xamuñu football am on a vécu avec son donc euh, dafa def dafa mel ni Pelé moom et lu mu nekkoon nit ku ñuul. jamono yooyu day nekk day am taxawaay boo xamante ni kenn ku ci nekk ci ñun da nga gis sa bopp et je pense que football Afrique sax. collège euh, yu na ci rôle bu am solo ndax nit ku ñuul amoon nu mu imposé woo ba nekk un des plus grands joueurs au monde xëy na mën na am effet bu mu def ci yeneen joueurs nit ku ñuul surtout Brésil nga xamante ni racisme dafa amoon doole trop. en tout cas métti trop et puis paix à son âme quoi. alors année 2022 mi ngi jeex ëllëg incha allah mooy dernier jour bi sax bu ñu mënee taxaw nag ci Sénégal wàllu koom gi dinañ ko waxtaanee mais ñëw ci li ko marqué ci fin d'année bi mooy rapport Cour des comptes bi am na ay manifestations yu ni prévoir tey opposition bi société civile dégg nga ci guvernement bi tontu ba premier ministre wàccee daje ak les partenaires avant lui y a le ministre des affaires étrangères aussi qui a réuni les ambassadeurs de l'Union européenne am na mu doon jàngat tey. ci banque yi ak taxawaay bi nga xamante taxaw nañu ko ci ci retrait yi fonds force Covid 19 concernant surtout yenn ministères yi on a donné l' exemple du ministère de l' loolu banque yi dañ ci am responsabilité wala c' est dans l' normal des choses. tey nag laa mos a <coughs> raté euh, jàngatu Souleymane parce que <laughs> rigueur bi muy def ci jàngatam dafa rare nga koy gis même au niveau des universités nga xamante ni li muy wax yëpp da koy da koy structuré sur des malheureusement tey avec dama dama déplacé. waaw ah, déplacement déglu ma ko. xam naa naa ko déglu après. mais problème mu banque yi moom mooy état xam nga banque dafa am lu ñu woowee les dispositifs prudentiels yi nga xamante ni banque centrale da koy teg commission bancaire di contrôler banque yi mais état. yow boo déposé plus de trois millions da nga koy justifier boo ñëwee di retirer sa xaalis nag une fois que euh, justifier nga ko ba nga koy dugal yaa moom sa xaalis. Mm-hmm. mais le problème est que banque mën na teg dispositif prudentiel mais xam nga dispositif prudentiel pour ñuy luubal la pour euh, trafiquant yeeg. suspect mais état mën na ko jàppee comme suspect <laughs> état la quoi c' est l' état. buy def loolu mënoon ne non état bi dama koy no c' pas possible parce que c' est l' état moo tax yooyu dafa inélégant dafa inélégant à tel point que comprendre ma sax. conférence de presse bi ministre du budget ministre des finances ñu dénk la suñu xaalis nga war koo sàmm. ngay layal kuñ ne dafa jël xaalis. c'est c'est c'est incompréhensible. nañ dem fi mbax na doone benn ñu leeral seen bopp ñu leeral ñu ñu ñu leeral ko premièrement. deuxièmement gis nga la décence même autorisé wul euh, xaalisu réew ñu mën koo retirer ay gàpp. mais c'est extraordinaire. enseignants yi dañ leen di imposer ñu am compte bancaire. Mm-hmm. ministre kan la mënta fay. ci lu dul virement parce que xaalis day am traçabilité ah mais léegi léegi day jël suñu xaalis téye ko di ñu jox ay lan ay ay ay reçu cinquante ba cent millions de mais non mais loolu loolu di ko di ko dégg sax quand même moi je pense que état bi warul wàcce boppam parce que le ministre des finance dañ ko dénk suñu xaalis dénk ko suñu gafa réew moom moo am pour sàmmal ñu ko mais nan lañ lay dénki xaalis boo war a sàmm ngay layal koo xamante ni dañ ko jiiñ ne dafa def détournement wala nga xeeb ne au moins six milliards ak ci mille milliards non loolu c'est une non c'est loolu quand même moi je pense que journalistes yi xëy na ñoo demul ñoo liiru rapport bi en profondeur pour mën ko pour man ko non mais quand même gis nga rapport bi Chérif xaalisu Sénégal la te dañoo fal gouvernement pour mu sàmmal ñu xaalisu Sénégal li population bi am pour demander justice état bi moo ko waroon def. maintenant nag état mënuñu la dénk alal bu ñëpp bokk ngay layal noo kii lu tax mu jël ko noo kii lu tax noo li suñu yoon nekkul ci li mu doon Khalifa Sall pour mooy ko saa tëj nañ ko bu affaire bu gaaw lañ ko jàppee. mais lii ñu jàpp leen li ma lay wax rek léegi le peuple n'est plus souverain simplement le peuple est dañ dina metti et position bi ñu nekk nii àdduna bi ñëpp nekkoon ci mbas la perte xam nga perte bi yemul rek ci loolu mais ni nga téye woon nit ñi ku ci nekk ñu bëri seen liggéey yàqu. Mm-hmm. ñu nekk ci ay difficultés muñ ko am na ñoo xamante ni ba ñuy ba ñuy dundale seen njaboot dañ ko doon am difficilement ñëpp muñ ko ci naqar. nit mën a retirer cinquante bu doon sax benn cinquante millions c'est insultant. Mm-hmm. parce que ku mu mën a fay rek mën na koo fay par virement. le fait que fay ko par par virement. Mm-hmm. je pense que li euh, ciy wax di ci lay day day gën a affaiblir état bi. Mm-hmm. état bi warul lay warul expliquer dañoo war a yóbbu affaire bi fi mbax na doone benn ñu jugé ko parce que Cour des comptes ci état la bokk justice ci état la bokk ministère yi ci état lañ bokk. donc dara génnul état lu état di faralee diw bàyyi diw. parce que une fois que ministre bi dëggal ne. justifier sa day fragiliser ba pare nappaale day fragiliser ko des comptes nappaale justice comme si que ñun d'accorduñ ci lii xam nañ ni ngeen di def mais surtout que son collègue moom lañ war a transmettre justement dossier c'est on est où c'est-à-dire damay naan mais lii amul débat dañu waroon jël dossier bi rek ñoom ñu ñu ji ñu am grandeur xam ne alalu réew lañ leen ji ñu démissionné dem seetal seen bopp Sénégal gis nga ministre bu ci démissionné woon ndax lii dinañ jàpp ne sax li yow li nga li nga def ñu la jiñ defoo mais boo ci làqatoo le fait que rapport bi génn mënatuñoo rëcc bu ñu rëccee fii tamit day gën a metti mm-hmm. ci boo amee alternance ñu leeral ko léegi moo gën ci ñoom mm-hmm. maintenant nag mun ñoo nekk ci réew boo xamante ni ñi gën a ñàkk dañu ñàkk di ci def mais ay nit comment on peut tirer de l'argent aussi facilement dem sa yoon mm-hmm. la banque moom li ko intéressé mooy lan état bu nee dama créer compte urgence compte de dépôt bi urgence la banque munu la demande yenn affaires yi mais budget lu muy def loolu même bu dee aide aide comptable la mën a dem. Euh, non état dafa organisé état dafa organisé système bancaire moo gën a organiser ci àdduna le système bancaire est tellement organisé mais la banque day naan comme Chérif moom moom xaalis bi teg na ko fii man mën naa ko demander justification bi mu koy teg mais nu mu koy jëlee nag kooku moom sama yoon nekku ci. Chérif moo ci am droit. Hmm. maintenant le problème mooy euh, nga am état. ba pare di ko contrôler comme sàcc loolu loolu banque du ko mën. je pense loolu mooy day affaiblir sax respectabilité bi état war a. docteur euh, man damay àddu rek ci gis nañ li xew récemment euh, Portugal ñu ngi koy def léegi suñu inter yi ak euh, l' affaire Trapgate benn kilifa rek lañ ci tuumaal mais gis nañ ne am nay kilifa yu bëri yu tekki seen ndombal tànk. ngir affaire bi leer loolu peut-être mën nañu ko xaar fii ci Sénégal mais li ma bëgg a wax rek mooy. Euh, ñu bëri ñu ngi ragal ne ça risque d'être impuni maanaam du mujj fen mais loolu bu amoon tey ban njeexital lay am ci ci suñu koom koppar bi nga xam ne dañ ko luubal. gis nga mënul impuni et gis nga buñ ko leeralul sénégal yi dinañ ko leeral xam nga Sénégal dañ koy woo chaque cinq ans mu vote vote expression la. Mhm. peuple buy wax la. peuple bi moom à la couleur aline buñ ko leeralul moo tax bu ñu expliquer amul kenn convaincre ñu kenn. wool ministre yi wool ambassadeur yi wool Sénégal nga war a waxal Sénégal li ñu bëgg mooy seen mbir leer mais les gens triment les nit ñi dañu liggéey fii liggéey yu métti yoo xamante ni mais di gagné loo xamante ni mais vraiment bu ñu nee diw retiré na benn cinquante millions rek ci lu jaarul yoon ci xala xaalisu réew c'est dafa dafa dafa ñaaw nañ ko leeral xam nga ñaanuñu yàlla kenn dem prison ñaanuñu yàlla jiñ kenn sàcc mais alalu réew day loo xamante ne loxo bu koy jël da nga war a lox maintenant nit mën ko jël aussi simplement ba pare war a démissionner leeral sa bopp man ministre bu ci démissionné woon naa am ci yow sax ne kii ah mën naa am defu. Ah, mais lan lan waaw Malick Malick lan ban conséquence parce que c'est ça la question ci suñu économie bi ban njeexital la ciy am. non xam nga suñu économie problème bi mooy euh, lenn rek la mën a def mooy am yàq suñu réputation xam nga dëkk. amul du réputation dafa am lu ñooy les agences notation internationale comme Standard and Poor's Moody's Fitch Bloomfield West African Rating Agency dañ dañ lay noter parfois le risque réputation dafa am doole ci notation yi maintenant bu dee dañoo wax gis ni Sénégal kat ah xëy na moo tax premier ministre mu di wax ak yenn institutions internationales yi dañoo mën a état bi dafa mën a jël liquidité damay am ay xarit yoo xam ne dañu nekk da ñoom seen problème mooy liquidité état du mën a yore liquidité ñoom pour ça ça sa ça fait pas du sens cest dire que liquidité état mën na leen yéen ñi bu leen bëggoon jàppale viré dafa leen ay virement ba ñu jàppale ñi gën a pauvre sax dañ leen ko envoyé nit mën a tirer cinquante millions ba par naa dalay lay jox explication ay reçu mais je pense que réputation Sénégal la mën a yàq et et je sais que sénégalais ñoom dinañ dinañ seen problème dañ ko régler il appartient à l' état mu teel a indi ay réponses yoo xamante nii waxuma la sax day day day day rassurer sénégalais yi mais day wane ni ñu mu àndal duma leen protéger. parce que euh, pour mooy que ça on a arrêté un un leader politique en en un record. li ñu arrêté xalifa Sall caisse d'avance. Mm-hmm. sénégalais yi xalifa def na deful suñu yoon nekku ci man dama suñu xaalis nañ ko sàmm ku ko mën a jël. naa nag bu dee opposition bu jëlee ñu toroxal ko say waay bu sa sa waay bu jëlee nga indil ko ex man explication laa mënta comprendre. on n'a rien à expliquer. mais li yëf yi di demee nii ak explication yi ñuy dégg est-ce que tey ñi nga xam ne ñooy daaj yi nar ñu nekk les agneaux di sacrifice d'autant qu'il y a des ministres qui se cachent euh, actuellement nii euh, voilà pour échapper euh, peut-être à la justice. tey ñu nar a exposer daaj ndax daaj mun na def lu nga xam ne tey jii kii kilifaam di ministre bi amu ci responsabilité. Malick ñoo la gën a xam ne loolu amul sens. gis nga daaj boo ko yóbboo. ci kanamu naa day day wax daaj bi jëlul xaalis di ko génne dañ ko dañ ko jox ord ci ord bi la et gis nga yooyu moom perte temps la rek wax ji sax di tudd daaj yi yabaate la gis nga ministre bi la ñuy dénk suñu xaalis moom moo am pouvoir exécutif daaj bi moom day génne rek maintenant le problème que nous avons léegi mooy ministre bu ñëw da ngay indaale sa équipe Sénégal dafa amoon administration boo xamante ni dëgër na moo téye woon état bi mais dañuy dem ba si yàgg léegi euh, ministre bu fi nekk dangay am say sa say waay bien politiquement nga jàpp nga jël nit foo dem mu ànd ak yow boo xoolee ministre bu ñu dem ñoom ñëpp ku ne da nga sa saddage mm-hmm. mais saddage nag mais quelque part euh, demee naan Sénégal c'est le seul pays boo xamante ni kenn ku ci nekk xam na ni li ministre yi gagné par weer ñun moom la ñu ci bëri ci ñun di gagné par weer puissance financière ministre yi ñëpp xam nañ jaaduwul mm-hmm. fan lay jóge il faut que qu'on arrête di naxante suñu biir fan lay jóge mais ci yu demee nii bii nag comme rëcc na siiw na nañ ko leeral aussi simple que ça. yi rëcc na yaa ngi wax euh, réputation euh, moom moo nar a yàqu au niveau international gis nañu opposition bi wax ni dina ñu saisir les institutions internationales FMI Banque mondiale ñi nga xam dañ dugal seen xaalis ci mbas mi te xaalis bi ñu luubal ko pour que ñoom ñu am droit de regard ci li Sénégal def ndax loolu mun na am njeexital ci suñu relation ak institution yooyu nga xam ni généralement ñoo ñuy jàppale. gis nga institution yooyu seen xaalis moom du res loolu moom maa la ko mën a wax. Mm. institution yi moom. xam nga problème yi mooy Sénégal xamuñu nu institution yi di waxee. Mm. institution ce sont des diplomates. Mm. bu ñu gisee Souleymane yi d' accord ñu si ne oui Souleymane yi nga wax dëgg la yi rafet na euh, mais la wax la lañ lañ la bëgg a wax moo tax kuy taxaw naan non kii bi waxal nañu li ce sont des diplomates. ñu paree seen rapport ba war a wax dañ naan mais est li ñu war a li ñu gisee bu ñu ko waxee est ce que du indi problème Sénégal parce que bu ñu sañee ñoom ñoom ñëpp. dëkk yi di stable duñ bëgg a yàq benn dëkk mais li ngay wax ci kaw ak li ñuy nekk ci rapport du bokk malheureusement nit ñi duñu am temps lu bëri di lire rapport yi dañ naan rek wuy institution nee nañu baax na parce que noonu lay waxee diplomate day ñëw ne la carrément ah non c'est bon c'est magnifique ni nga ko gérer nii c'est bon wax la lam lay wax ci biir mais ñu amul rigueur scientifique dem ba ci biir rapport du ñu gis loolu premièrement deuxièmement ñi noté c'est pas les institutions c'est les agences de notation et c'est euh, wala ay Moody's day yëndu Sénégal à chaque fois pour xool Sénégal lu fi xew ndax dëkk bi am na stabilité ndax ces indicateurs macroéconomiques fa ñu war a nekk mu ngi fa nekk ndax réputation baax na nan lañ jàppee opposition bi est-ce que dans un an deux ans réew mi du yëngu yooyu yëpp dañ koy calculer yooyu nag mooy tax ñu lay jox note boo xoolee on avait la quatrième meilleure note africaine daaw euh, affaire Sonko aji Sarr ba mu yëngoo en moins de cinq jours on a perdu cinq places dañoo jógee quatrième dem neuvième parce léegi ce son des des des, des logiciels ñooñu ñooy joxe information yi c'est-à-dire bu ñu gisee Sénégal euh, Free Sénégal RIP Sénégal wax yu wax yooyu rek logiciel day renseigner le modèle que non yaa Sénégal mu ngi ci benn zone mu ngi ci benn zone de turbulence. Mm-hmm. rek lépp changé dañuy jógee rapidement suñu euh, les eurobonds jógee de 3 pour cent dem ba 9 pour cent. nga xamante ni nit ñi ngi commencé perdre confiance maintenant dëkk boobu bu ñu ko installé maintenant ci situation bi mu war a dem euh, euh, euh, à à dans deux ans ñu nekk ci situation bi nit ñoo jël jëluñu ñoo sàcc sàcc ñu leeraluñ ko je pense que loolu mën na impacter négativement suñu population. dëgg bu ñu ñëwaatee au delà de ça nag coow li bañ na ñu ngi xaar justice ak manifestation yi gouvernement bi moom gis nga sax premier ministre président dafa sàkk woon ci moom. mu xool rapport bi après jëm ko expliquer on apprend euh, avec le journal Le le premier ministre dina rencontrer société civile mais aussi partenaires yi. est que loolu danga nga jàpp ni mën na leen a yey ba coow li dakk c'est que du mook partenaires yi du mook société civile mook sénégalais yi la xam nga ñooñu mën nga leen expliquer wuy lii la lii la lii la dinañ ko rectifier lii la lii la wuy fii nii dañ ko rectifier ainsi de suite joxe ay ay ay mais le peuple sénégalais dafa jàpp ni xaalisam dañ ko fooye peuple boobu nag am na droit am pouvoir exécutif am pouvoir législatif am pouvoir judiciaire ñu leeral ko xaalisam arrêté jarul débat jël nañ suñu xaalis jëluñu ko ñi ngeen ko def def leen ko nii nañ dem justice su mbax ne doone benn mais justice pour lan la maintenant di wutal lay je pense que loolu. loolu justice est-ce que warul autosaisir ci cas yu mel ni au lieu ñuy xaar ay procédure comme quoi le mi euh, waa cour des comptes ñu yóbbul ministre de la justice rapport bi bu ko ko yóbbulee après voilà il verra la suite à est-ce que tey warul am autosaisir. gis nga man yi tax yi lii dama ko ragal parce que lu ñu koy gën a téye ci état bi lay gën a metti état bi moo gën a am problème pour une raison très simple nit ñi dañu voté xam nga vote loolu la nit ñi xamuñu le sens du vote. le sens du vote mooy est-ce que d'accord ngeen ñi réew mi ni ñu koy doxalee boobu ba léegi gis nga am na yoo xamante ni boo ko defee nit ñi dañ lay xaar xam nga bu ñuy citer chaque fois Mamadou Seck c'était c'est depuis presque vingt ans yàgg na mais c'est le boo xamante ni démissionné na juste pour setal deram ndax du deram moom kese ah parce que politicien damay naan souvent dañu fàtte seen njaboot boo amee njaboot da nga leen wutal way wu rafet mm-hmm. maintenant mënuñu laa taqal ci lu toll nii xam nga sénégalais yi fu ñu nekkoon xam nga sénégalais yi tax dossier bi di leen metti mooy dañoo dund lu metti toog seen kër di seetaan télé di am les informations mais bu ñu leen nit mu ngi doon retirer xaalis comme ça aussi facilement kooku taxaw ñu naan ñu koy wutal lay et puis moom sax du lay dañ koy wutal lay je me suis dit que mais ban dëkk lañ nekk mais moom na génn la wax ak ñun na génn wax ak ñun ñu laaj ko ñi nga xaalis bi nga doon retirer lu tax mënoo koo def virement xanaa orange moo ne sax nga def ko moom traçabilité ñu xam koo ko envoyé mais duñ ko duñ ko may muy ñëw di ñu indil ay kayit naan ñu fii la ñu signé kii kii si ñëw. dafa covidoon. non mais. mais wax na ko ci mais ba mu covidé la war a bàyyi keneen kuy gérer xaalis bi. envoyé ko série su ma leen bëggoon envoyé léegi xaalis mën na leen ko moom traçabilité bu ñu digitaliser économie xam nga lu ñu ci wut traçabilité xaalis dafa am traçabilité man par exemple su ma nee su lépp lu may fay. damay utiliser sama téléphone les les les trucs numériques parce que su ma demee nga ne fayoo ma génne sama téléphone wala ne mi ngi nii mais comment un ministre de la république peut sortir de l'argent loolu. mais mais xam nga teg lépp dañ ko tegoon comme ni ko Cour bi waxee Souleymane sax évoqué na ko ci recommandation yi gi ak xëy na mbas mi ni mu demee woon ñu nekkoon ci urgence ñu ne marché gi mel rigueur bi daal dañ xaw a un peu allégé bi jàpp na ni sax loolu boo ko nekkoon ci li indi njombeel yi. gis nga ku bëgg a sàcc kenn mën laa tere sàcc loolu mais gis nga même bu ñu allégé lépp mën nga jaarale mbir ci yoon Chérif on a dem li ñu demandé mooy leeral leen justification. parce que cour bi il faut que ñu respecter la cour des comptes man am naa fa ñaari promotionnaire kenn ki c'est un en économie keneen ki c'est un docteur en droit dañu ay parce que ñu bëri dañuy jaawal magistrat yi comme magistrat yi nekk truc bon parfois c'est des c'est des c'est des gens yoo xam ne dañoo yàgg ci administration dañ fa def au moins plus de dix ans ñooñu bu ñu la fu ñuy defee lu ñu seen liggéey par dañu lay wax ak yow ay boroomi xam-xam lañu ay boroomi xel di wax ak yow boo leen wax ay wax yoo xamante ni taxawul mais ñu xam ne yow mi lii nga lii nga lii nga def mënoo ko justifier ñu ñun indi ko nag ne la nag demal justice nga leeral ko mais je pense que par respect même à la cour des comptes waru woon am débat état daf ñoo waroon wan nii ñun ñëpp Sénégal yëpp ñun ñëpp ñoo yem ci yoon jàpp nañu ay nit yow cour des comptes laaj na leen mënuñoo tontu nañ dem justice mu leeral d'autant plus d'autant plus que la cour des comptes et c'est ça aussi le problème cour des comptes ils sont par le devoir pour mënuñu wax mënuñu tontu mënuñu expliquer mënuñu répliquer mënuñu def dara je pense que le mot clé élégance la c'est-à-dire pourtant le gouvernement boo leen dégloo bu baax euh, infine fine ils disent qu'ils vont exploiter le rapport mhm. dinañ appliquer yenn la plupart des recommandations yi ñu leen defal euh, notamment au plan organique au plan des procédures et cetera et indi mhm. dugal ci loo xam ne ça décrédibilise tout ça moom mooy jéem a expliquer l'inexplicable euh, l'élégance euh, aurait voulu que ñu bàyyi dossier bi dem Euh, les recommandations de d'ouverture d'information judiciaire information judiciaire moom mooy na benn juge jël dossier bi càmbar ko dem au-delà de lii Cour des comptes gis bu nekkee ni laaj na information judiciaire ñëpp gis nañ ko ci affaire Adji Sarr les possibilités sont énormes euh, mën nga classer sans suite mën nga def euh, non lieu partiel mën nga def euh, euh, ordonnance de de poursuite nga yóbbu ci juge mu mu mu juger donc boo amee possibilité yooyu yëpp nag nga taxaw di jéem a layal et cetera d'autant plus que ce sont des responsabilités individuelles mmh. responsabilité individuelles <laughs> état da lay défendre des individus yoo xam ne daleen leen soupçonné de manquement Euh, au, au principe de, de bonne gestion euh, et aux, aux règles. Et ça c'est une question vraiment mooy comme yow say collègues ñoom ñoo fa nekk xam nga leen bu ñu demee ba di leen jéem a solo sax mbubbu politicien ça pose problème quand même pour un travail aussi sérieux et aussi rigoureux. c'est la deuxième fois. Mm -hmm. c'est la deuxième fois def nañ ko fii le ministre am na benn ministre bu ko def aussi off nag bu ñu fragiliser institution mm-hmm. bu ñuy jàpp homme politique. bu nekk ci opposition lan la ñuy wax nañu bàyyi justice mu def liggéeyam Khalifa Sall n'est euh, lan la ko waa ji waxoon euh, IGE recommandation tel dossier bi ak rapidité jàpp tëj sénégalais yi gis nga métti na leen de xam nañu bëri na politique mais seen xaalis lañ bëgg fu mu dugg mu leer donc dossier Khalifa Sall il a trop de politique mais il y avait une façon de faire boo xamante ni ça gênait tout le monde affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dossier bi am na dara amul dara ñu ne nañ dem justice sénégalais yi toog di di leen seetaan ak justice mais ñu accuser ay autorité koo ci accusé mën na noo couleur yi couleur Pastef la wala nii dañu politique mais ko Cour des comptes quand xam nga nit ñi il faut que ñu xam ni ñoom ñuy def politique ñoom ñoo jàpp ni politique raccourci la pour s'en sortir les gens gagnent bien leur vie sans politique nit ñi amuñu pré cest que il faut que homme politique yi xam ni li ñu yor du c'est pas quelque chose d'extraordinaire dernière question c'est au conseil des ministres décentralisé par le président mi ngi Tamba ñibbi si sax gis na milliards yi nga xamante ni diggée nañ fi deuxième fois euh, capitale euh, Sénégal oriental di accueillir en tout cas rendez boobu beneen bi tam mooy ñi ngi jëm quand ci une année préélectorale parce que y taxawaayam même si ñim àndal moom duñu bëgg mu nekkaat candidat yow soirée électorale bi amoon ci législative yi am na loo waxoon ci RTS bi électeur ba song la fi nga ne Macky Sall c'est fini da nga koy maintenir ba léegi wala dafay bokk. non Macky Sall ku ko bëgg ku ko bëgg wala kuy mbokkam ku ku ku ko bëggal histoire histoire am lu mu retenir ci moom doo ko ñaanal sax ñu koy tudd ci ay affaire élection politiquement la wax mënul gagner élection Sénégal c'est fini su ma amoon temps je vais t'expliquer clairement non expliquer c'est important ñu gis nga élec électorat da ngay xool nu muy évoluer Sénégal chaque fois bu bu président di dem deuxième mandat nit ñi dañu lay voter Sénégal fam lu ñu wooyee en fait la classe moyenne qu'on appelle parfois les gens bien entre griffes ñoom dañu naan benn mandat doyul pour président. gis nga en en 2007 boo xoolee ni ñu falee Macky Sall 2019 noonu la ñu falee Abdoulaye 2007. waaw gars jinne jinne ko voté parce que xamuñu ne Sénégalais dañuy toog seen kër. voté jot ñu dem voté ba mel ni kurus noppi mais ñoom ñoo gëm ni benn mandat doyul président Macky Sall 57 pour cent la Abdoulaye Wade amoon moo amoon pour cent. léegi nga fi mu fi mu fi ñu nekk nii c'est cette classe moyenne la li ko gën a metti c'est pas que euh, mën na mere opposition ci gauche droite ci nu mais li ñu gën te mënta nangu ku ci nekk ñun père de famille Macky Sall kilifa la dafa wax waxaat waxati gis nga le fekk que mu remettre cadeau ñu ko doon gën a jàppale mooy ay nit ñu baax waa ñoo xamante ne jàpp nañu ni Macky ku yaru la nit ku baax la mais cadeau dafa am solo ci Sénégal Sénégal léegi la signature contrat am nit ñi kàddu lañ daan def. gorte wax na ko ci réduction mandat bi terewul ñu réélire nga li gën a a tiital nit ñi mooy ku daan ku bëggoon réduire sa sa mandat kay mooy yow da ngaa bëggoon gérer au maximum dix ans xam nga ne loolu mooy suqal démocratie réduire amaat 5 bëgg amaat 5 def 17 ans au pouvoir président Macky Sall c' est de 2000 à 2024 ans mais c' trop Macky dañ ko dañ ko yàgg gis Sénégal 2000 ba léegi ñu ngi mu ngi fi 24 ans doy na il il il mérite d' avoir une vie. après quoi après mais kii bi amul xam nga moment bi amul amul candidat dans son camp tamit. sa sa man sama xam nga li suñu problème bi ñoom lu ñuy tojee seen bopp ginnaaw ñoo ko xam mais gis nga président Macky Sall te moom rek le seul candidat histoire Sénégal bu am. opposition boo am taxawaay bi amul amul benn candidat histoire du Sénégal bu am opposition bi ma Sall am il a une opposition très jeune il a une opposition très dynamique opposition boo xamante ni day créer ay initiative mais oui et puis da koy non opposition bi da koy tànc ci miir bi. opposition bu riche am na. riche loolu yëpp loi réglementation moo koy régler moo koy régir mais gis nga dañoo toll foo xamante ni gis nga boo amee pouvoir bu fort. il faut nga am opposition bu fort opposition bu fort bi nag ñun ñëpp xam nga boo fekkee ñaari xale yuy xeex sax yow ko gën a néew doole ngay faral. ngay faral parce que doo bëgg kii écrasé ko. mais est-ce que opposition bi dernière question ñi ngi saisir cette opportunité a xew le 31 concert de am ay bool. gis nga élégance ci pouvoir lañ ko njëkk a sàkkoo Chérif kan mooy kan mooy nekk candidat 2024 Khalifa Sall daraam leeru. Hmm. Karim Wade daraam leeru. Ousmane Sonko. d'accord mais vous pensez que dans un pays démocratique mën nañoo toog à un an des élections kenn xamul mais loolu quand même fan la jógee te loolu lépp c'est c'est du bon vouloir du prince ah su président Macky Sall lépp jeex lépp jeex à partir du moment où ngay bàyyi pouvoir bi mu bi mais opposition bi pour dund nag nga koy naan non bu ko def non pour man c'est c'est très injuste opposition bi ndax xeex ba kër président Macky Sall libéré Sénégal c'est-à-dire que bàyyi leen ñu dem ñoom bu ñu am seen candidat ñu xëcc Sénégalais yi tànn parce que Sénégalais yi je vous dis une chose xam nañu bu baax kan la ñuy kan la ñu tànk tànn mais on n'a pas besoin comme ay xale ñu téye ñu kenn xamul kan mooy candidat 2024. mais ah, bu bugaan ñu ne ko da ngaa am da ngaa amoo parrainage mais c'est trop quoi. je pense qu'on doit libérer. a euh, euh, Khadim Bamba euh, Diagne doon lu sa teewaay tey jii ci info matin dañuy wéy ak une des journaux du groupe Futur Média.